jërëjëf euh, mbokk yi itam di seetaan seen site internet mourides point info ñoo dellu si waat di leen présenté seen émission face à mourides point info tey ñu ñëw di seq waxtaan ak Moussa Niang bi nga xam ne que mooy président bu nga xam ne mooy fondation 221 kon ñu def lu dul jox ko kàddu gi mu présenté kon sëriñ Moussa bisimilah. waaw salaamaaleykum sëriñ Mbacke ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yónnent bi dañuy delluwaat di sant sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba. te aussi di ñaanal euh, Serigne Mountakha Mbacké yàlla may ko gudd fan may ko wér gu yaram te jàppale ko ci mission Serigne Touba bi nga xam ne euh, ci la nekk aussi tamit dañuy euh, nuyu di ziar sama wasila Serigne Mouhamadou Mamoun Mbacké bu Serigne Fallou di ñaan yàlla aussi bàyyi ko fi may ko gudd fan may ko wér gu yaram Serigne Mbacké yow tamit maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy déglu Mouride Info jërëjëf euh, sëriñ Moussa ci présentation boobu noonu kon duñ def lu dul jàll ci biir waxtaan wi muy nekk suñu laaj bu njëkk pourquoi wala lu tax ngeen tànn wala ngeen tuddee seen fondation bi fondation 221. waaw jërëjëf sëñ Mbacke si question boobu xam nga soo fondation 221 soo 221 donc euh, li muy référé moom mooy indicatif fu Sénégal donc juste foofu rek pour wane ne mooy fondation au Sénégal fondation bi Sénégal moom moo tax mu jóg moo tax ñu tuddee ko 221. mais comme euh, à chaque fois rek ni ma koy expli ni ma koy expliquer dafa am symbolisme boo xam ne moo nekk ci ci euh, ginnaaw 221 boobu noonu soo ma lay jox benn exemple mooy par exemple euh, soo nekkee Sénégal soxlawoo composé 221 su fekkee ne da nga bëgg woo kenn da ngay dem directement ci 77 wala 78 wala 70 wala 33 bon ça dépend ci opérateur bi nga nekk pour jot ki nga war a jot. mais 221 fi ko soxla rek moy à chaque fois so nekkee à l'étranger so nekkee Europe wala nga nekk si dëkk Afrique wala nga nekk Amérique fo mënti nekk à l'étranger généralement da ngay soxla composé 221 pour mëna jot wa Sénégal donc fofu non limi muy symboliser rek moy ñi nga xamné ne dañoo nekk si diaspora bi euh su ñi nekk sa diaspora bi ñoo ngi wax sénégalais yi ñoo ngi wax yeneen africains yi ñoo ngi wax ñeneen ñi nga xamné tamit Afrique mo moo euh, seen racine Afrique la ñoom ñëpp rek di tàllal loxo Afrique pour mën a liggéeyandoo ensemble liggéey liggéey ak Sénégal pour mën a assurer rayonnement Sénégal donc euh, loolu moom mooy tax ñu woowee euh, fondation bi 221. ba tey sëriñ Moussa ci biir waxtaan wi ndax mën nga ñëw dikkal ci li nga xam ne mooy activité fondation 221 maanaam ci lan lay yëngutu ci pour mbokk yi xam ne ñoo ñuy topp ci seen émission face à mourides point info xam dëgg-dëgg lan mooy fondation 221. La fondation 221 dafa une euh, ben organisation philanthropique euh, c'est-à-dire bu yëngatu ci ci humanitaire ak aussi ci promotion volontariat ak euh, leadership ñu am tamit domaine d'activité bu xaw yaatu c'est-à-dire que dañuy jël en charge orphelins yi dañuy xeex xiif ak ñàkk aussi tamit di xeex problème santé yi nga xam ne jigéen ñi moom la ñuy jànkantoo ak ak rek di liggéey ci santé en général ci santé publique aussi tamit euh, dañoo am tamit benn mission boo xam ne tamit dafa euh, bu am importance la mooy que ne euh, dañuy tàggat mën nañoo wax une nouvelle génération de leaders africains dañoo créer benn institut mobile de leadership boo xam ne mu ngi consisté ay club de leadership yoo xam ne ñoo ngi koy bëgg a def ci lycée ak collège yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal pour élèves yi demee mën a nekk ay leaders seeni communauté nekk leader seeni école seeni communauté ak lépp donc fondation 221 en général euh, si loolu la ñuy gën a yëngatu. ginnaaw yooyu suñu Moussa ndax mën nga ñoo ñëwal ci ni nga xam ne moom la fondation 221 def ba xam wala mu nekk en relation ak euh, association bi ñuy wax Touba ci kanam Nourou ni waaw Serigne Mbacke euh, waa Touba ci kanam ñoo ngi entré en contact ak ñoom grâce à Serigne Moustapha Amar Serigne Moustapha Amar moom mooy seen président commission sociale. ak aussi tamit sëriñ bu Mbacke bi nga xam bu sëriñ Fall bi nga xam ne mooy seen jëwriñ euh, moom it ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di euh, di ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam. jërëjëf ginnaaw yooyu leeral ndax mën nga ñoo dikkal ci conteneur bi nga xam ne que ni Touba ca kanam nooru daal ni ni réceptionné na ko ci fan yi ñu weesu tam jëm ci poste de santé bi nekk Touba Lansar ndax mën nga ñoo dikkal ci équipement bi nga xam ne moo nekk ci biir conteneur boobu. waaw euh, sëriñ Mbacke sooy xool matériel bi liste soo koy xool ay page donc euh, xam naa ne duñ ko mën mais euh, euh, en résumé mën la quelques yoo xam indi nañ appareil machine ultrason avec son dernier cri ak aussi ànd matériel orthopédique ay instruments de chirurgie aussi ay ay ay hôpital consommables yu donc en résumé mën nañ la mën naa la wax yooyu moom mooy si nga xam ne moo si gën a euh, am importance si nga xam ne indi nañ ko. ba tey ba tey suñu laaj day desandi foofu muy ne conteneur bi ginnaaw bi ñu dikkalee ci li nga xam ne que ni moo ne woon ci biir ndax mën nga ñoo ñëwal ci valeur bi ndax buñ xoolee ci projet bi ni ko waa Touba ca kanam tënkee woon matériel boobu dafa bokkoon ci li nga xam ne que ni ñoom dañ ko waroon a jënd kon dina baax nga xam ne ñu somme bi nga xam ne que moo dem ci conteneur boobu. waaw valeur bi mo ngi toll si 271 millions 271 millions CFA yooyu leeral la am na solo kon ginnaaw loolu ndax mën nga ñu diggal ci récep matériel boobu ndax biñ réceptionné ba léegi nii ndax fondation 221 rafetlu na ni nga xam ne que moom la jëwriñ ñi tubaab ci kanam jëfan jëflanteeg moom ci ba conteneur boobu egsi alhamdulilah dañuy santaat yàlla rek si euh, collaboration bi euh, di santaat seen jëwriñ Serigne Abibou Mbacke ak euh, seen président nga xam ne moom mooy Serigne Fallou Ndiaye ak Moustapha Amar euh, conteneur bi euh, liggéey nañ ay liggéey nañ si bi mu egsee def nañ réception bi defee nañ ko réception wu taalibe Serigne Mbacke Madina Cissé rassemblé na équipe am ñi nga xam ne moom na leen ñu ànd ak suñuy famille ak suñuy am du jàmm. def benn délégation boo xam ne sëriñ Mamoun Mbacke bu sëriñ Fallilou moom moo ko diriger ñu dem si sëriñ Mountakha Mbacke xalif général des Mourides euh, présenté ko liggéey bi présenté ko conteneur bi mu jébbal ko euh, këyit yëpp këyit yëpp muy euh, don bi yëpp jébbal ko ko ànd seek tamit waa Touba ci kanam ak sëriñ Abibou Mbacke donc def nañ ko def nañ ko si. si si def defee nañ ko mbiru taalibe mbiru murit euh, alhamdulilah alhamdulilah. dañ doon jot information que ne que fondation 221 dafa jëloon décision ngir équiper quatre postes de santé yi nga xam ne moom la association Touba ci kanam nooru daare nii fas yéene taxawal fii ci dëkk bu sell bi ci Touba ñu laaj ndax fondation bi mi ngi ci disposition yooyu ba léegi waaw wala déet fekkee nag dafa amuk soppeeku tamit ñu dikkal ñi si li indi soppeeku googu. bon yaakaaruma nag n mës na am benn euh, engagement boo xam ne.

si euh, si suñu bilan bi nga xam ne moom lañ am 2018 bon 2018 des na tuuti des na benn weer donc euh, boucler ñu année bi carrément mais rek jox la benn synopsis bu ndaw soo ñëwee si euh, si liggéey bi ñuy def si orphelins yi équipe baa ngi def benn liggéey bu am solo si prise en charge des orphelins instant yi nga xam ne maa ngi wax ak yow am na benn campagne boo xam ne ñoo ngi koy woowee mille orphelins nga xam ne équipe bi fi mu ne nii ñoo ngi def benn campagne de levée de fonds benn crowdfunding Euh, boo xam ne seriñ Moustapha Fall fi mu ne nii moom moo dirige projet boobu noonu nga xam ne su paree dina war a mën a bénéficier mille orphelins donc tamit ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy dégluwul di ñu seetaan tamit euh, ñoo ngi leen di lancer appel ci euh, campagne boobu noonu ñoo ngi koy boucler mi décembre incha allah soo ñëwee ci suñu programme bi nga xam ne mooy programme mu accès à à l'eau potable Fondation 221 ci 2018 bi. Euh, foore na gas na yenn puits moderne yi nga xam ne dafay nekk ay puits ay ay teen euh, yoo xam ne dañuy dañuy leen di équiper ak euh, pompe électronique te tamit dañ leen di connecter si ay borne fontaine pour l'instant pare nañ defar nañ bu lycée Mbacké 2 bam pare CEM Gaynde Fatma aussi def nañ ci benn bam pare CEM Mbacké 3 aussi tamit seen bos pare na

bi nga xam ne mën nañ ko woowee euh, masterpiece bi mooy suñu li ñuy wax suñu institut mobile de leadership sànq maa ngi si doon jaar institut mobile de leadership bi dafa nekk euh, benn institut boo xam ne fixul ni ñu koy defee mooy dañuy dem si euh, les lycées du pays ak collège mooy yi nga xam ne ñoo fi ñu créé fa ay club de leadership donc club de leadership yooyu nga xam ne li ñuy jëriñ mooy que ni suba dañoo war a former ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy ñoom ñooy jiite réew si politique mais par exemple ay source d'inspiration euh, pour pour ñeneen source d'inspiration élèves yi source d'inspiration dañuy par exemple ay communauté bëgg former former leen si ay si euh, yenn euh, leadership yi technique de management mais aussi tamit jox leen ay formation pratique formation yi nga xam ni mën na am ni Euh, fay jëm si par exemple si communication jëm si lu nekk aussi di leen yóbbu ñoom ñuy def ay travaux d' intérêt général mooy comme ni koy waxee commune de service si seen i hôpitaux si seen i mairie si seen i koñ si seen i biiru école donc ñu nekk ay leader yoo xam ne leader fini leader prêt yoo xam ne te ay xale yu ndaw la yoo xam ne dañ leen di gis xam ne que ni ñii euh, ay source ay inspiration lañ donc euh, loolu moom mooy suñu institut mobile de leadership bi fi mu ne nii commencé nañ créer yenn club de leadership Euh, si yenn lycée yi nekk Sénégal aussi tamit euh, am nañ tamit benn programme boo xam ne ñoo ngi joxe ay bourse euh, de formation professionnelle ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekk supérieur wala ñoo bëgg a nekk si formation professionnelle pour l'instant boucler guñu dossiers yi mais am nañ ñu bëri ñoo xam ne octroyé nañ leen ay ay bourse aussi tamit soo ñëwee si fondation 221 ren tamit am na lu ñu woowee suñu programme saisonnier yi suñu programme saisonnier yi mën nañ see jël par exemple tabaski bi tabaski bi ñoo ngi jàppale lu mat sept cent famille euh, à Mbacké et à ñu mën a célébrer seen tabaski euh, euh, en toute dignité aussi tamit campagne Ramadan bi tamit macha allah nekkoon na campagne boo xam ne fondation bi réussir woon na ko nga xam ne mille deux cent famille lañ jàppale si ay kit Ramadan si ay si sukkaru koor si diggante Mbacké Touba Sagata Jolof ak banlieue Dakaroise bi. Pikine ak Guédiawaye donc foofu noonu def nañ fa lu mat 1200 soo ñëwee si soo ñëwee amerique nga ñëw si réew bi ñuy wax Atlanta Atlanta euh, am na opération yu fa defoon si bis bu ñuy woowee Day of Dignity euh, Day of Dignity nekk jour boo xam ne dañ koy célébrer fii nii euh, surtout si communauté musulmane bi nga xam ne dañoo nekk Amérique nga xam ne que dañuy jël yenn sans domicile fixe yi jox leen ay yére walla jox leen ay. jox leen nourriture boo xam ne mën nañ ko utiliser pendant des jours donc si euh, euh, day of dignité bi fond équipe fondation 221 bi nga xam ne moo ngi Atlanta jàppale na 200, euh, 200 deux 200 personnes yi nga xam ne dañoo désavantagé fondation 221 jàppale na leen foofu noonu Atlanta bon suñ ñëwee tamit si si côté san si côté santé hormis les cas individuels donc euh, fondation deux 221 euh, ren liggéey nañu liggéey bu am solo si relevé plateau technique euh, suñu hôpitaux yi ak centre de santé yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi ren ñoo ngi amoon ren en fait ñoo ngi projeté woon pour mën a investir lu mat deux milliards au Sénégal yàlla def na que ne dépassé nañ loolu fi mu ne nii ñoo si lu mat deux milliards deux cent millions. Ah, soo koy xool ñoo ngi ko répartir si hôpital pour enfants Diamniadio boo xam ni si mars avril bi passé si deux mille dix-huit lañ fa dem ak euh, benn plateau bu coûté deux cent soixante quatre millions Albert Royer benn bu coûté euh, deux cent quatre vingt onze millions euh, Pikine ñoo ngi fay yóbbu lu mat quatre cent quatre quatre cent quatre vingt dix millions Touba ca kanam deux cent soixante onze millions. te aussi soo ñëwee entre Matam ak Rufisque ñoo ngi leen jox ay produits pharmaceutiques yoo xam ne euh, valeur bi moom six millions fi mu ne nii am na nekk benn conteneur boo xam ne moo ngi en cours dina àgg avant fin décembre boo xam ne moom si toll si 251 euh, millions donc total boobu noonu nekk euh, lu mat presque deux milliards 200 millions yoo xam ne ren fondation bi investir na ko donc. Euh, macha allah euh, analyse yu ñu def pour l'instant euh, nous sommes wax dëgg satisfaits si si liggéey bi donc dañ koy rek delloo di ko sante yàlla aussi di santaat tamit équipe bi bu baax a baax si liggéey bi nga xam ne def nañ ko si ginnaaw loolu ndax fondation 221 mas na am benn jafe-jafe ak l'état du Sénégal pour euh, dérouler yi nga xam ne que ni mooy njàppal dal gi jàpp ndal askan wi ci li nga xam ne que ni moom la ñu yittewoo ci domaine d'activité yi muy yëngu. non dëgg-dëgg amuñu benn problème ak état bi amuñu benn difficulté. jërëjëf sëñ Moussa comme que ñoo ngi ci njeexantul émission bi ana yan kàddu ngay tàggatoo. waaw kàddu tàggatoo rek mooy euh, yow Serigne Mbacke dañu lay euh, gërëm bu baax si euh, émission bi aussi tamit di gërëm team Tuutu One mooy équipe fondation 221 bi nga xam ne ñoo ngi Sénégal su ma si tuddee rek Serigne Mbacke Madina Cissé bi nga xam ne mooy coordonnateur national bi tudd naa tudd naa ñëpp ndax bilan bi rek nu mu munti toll ñoom ñoo ko fay yóbbu di gërëm suñu équipe bi nga xam ne ñoo ngi nekk France ak équipe bi nekk Atlanta. di ñaan yàlla euh, ñu dugg ci année deux mille dix neuf ci jàmm te euh, mu gën a yokk kàttan yi gën a yokk mën-mën yi ba nga xam ne luñ xam ne mënoon nañ ko def nañ ko ci deux mille dix huit suñ ñëwee deux mille dix neuf ñu doublé ko euh, jërëjëf. jërëjëf Serigne Moussa toute l'équipe de Mourides point info ñu ngi la jaajëfal di la jox sa wàccuwaay di jox téléspectateurs yi ñu doon topp ci biir émission bi di leen jox dig daje ba beneen yoon.